مصرين وحب أبي إسحاق في قلب من يدري وبالنفس والمقدار منه وبالقدر وبالذات والسر المصون وباسمها وأوصافها بالشفع منها وبالوتر من وحب أبي إسحاق mbëggeel bi أم am ci تي تي كي ki موي أبي إسحاق دي باي abi ishaq nag tur la bu ñuy dàkkantalee képp ku tudd ibrahim ne ñuy dàkkantalee képp ku tudd ahmad waaye nag martaba la ci biir martaba yi moo tax misri ne wa hubbu abi ishaqa bëgg abi ishaq fi fi man yadri dafay tàbbi ci xolu ki nga xam ne xam na kan mooy dëgg-dëgg baay wa bin nafsi ak ci bakkan bi wal miqdaar ak ci dayom minhu ci moom lay tukkee wa bil ak ci daraja ku bëgg bàyyi danga koy bëggee sa xol bëggee ko sa nafsu bëggee ko sa qadru bëggee ko sa miqdaar nga wàccee ko wàccuwaayu xol bi wàccee ko wàccuwaayu bakkan bi ndax loolu lépp moom la wa wax na waxaa anna haada alhibba xaybu ilahina wa qalbul wara loolu mooy tegtale qalbu ana nafsu wal afaq moo tegtale nafsu bi wal miqdaari ak dayoom ba min hu tukkee ci moom wal qadri ak garaatam ba wa bizaati wa sirri almasuuni wa bismiha وأوصافها بالشفع منها وبالوتر مثلنا وبالذات أكتجمي يالجي والسر المسوني أكمبوت ميغا خمنا دنكو نيونيل سر المسون نك بوكو ديجيرك مو إنسان الكامل بي وباسمها أكتورم يه والتورم به وأوصافها أكملهم بالشفعي min ha ci yiñ ci ñaar ñaaral mooy yi nga xam ne ñooy firi azalaati salli ala al isnaini ramzati kulli isnaini wa sirrihi fi isnaini wa zaka sirrul azali moo tax mu ne bis shafi bu la neexee nga ne mooy nubuwa ak wilaya min ha tukkee ci moom zaatu wa bil witri ak ci witar muy martaba bi nga xam ne kenn ci toog muy alxilaafa kon fi tuddal nañu nubuwa ak wilaya khilafa ak insanul kamil ak zaatu mi nga xamne mom mo len leen yebal moo tax da nga fiy gis zaat sirrul masul moy insanul kamil bi shafi mu ëmb nubuwa ak wilaya bil witri mu junjuñu khilafa mu ne la fi cheikhi maanan law taraa li saxratin لصاحت به فوق الجبال إلى الصخر لفي الشيخ نكن جسرين به وخلنا لا نار موريتاني بني وخي الشيخ رك شيخ إبراهيم لن تجبلو وعي شيخ إبراهيم نك بو وخي الشيخ شيخ تجان لن تجبلو لفي الشيخ نكن جسرين به معنا معنى بو خمنا لو ترى سفينيون لصخرة نيل أبدج لصاحت به دين يوخو fawqal jibaali ci kaw dojja ila saxri jëm ci li nga xam ne moom mooy ci kaw montagne ya jëm ci dojja fa taasiqu jabran wal mahabbatu hakada wa ayu malamin fi lladi kaana bil jabri misri ne fa taasiqu nga bëgg ko jabran ci force bëggeel goo xam ne amul condition wal mahabbatu ndax mbëggeel hakada noonu lay demee da dem ci da nga dem ba jeex mu ne sax wa ayu malaamin ana ban yeddaange moo nekk fi ladi ci ki nga xam ne kaana nekk na bil jabri ci jàng damm damm xolam ci kim bëgg xalil yi yow sama sopp bi xalil law ma bàyyi say sa sa sa yeddaange wayka ngalawaay wa xud uzri ta nga jàppal jàppal ma ngant fa ayu dawa in yartajil euh, هو يرتجي للهوى العزى فأي دواين أنا بن سافر يرتجي نجي ياكار العذرة موي سافر للهوى سما بجيلك أموت صديقي يو سما خريب لا تصحب خليا من ال... ولا خاليا من الهوى ولازم أخ الأشواق أه... واصحب أخ الفقر sadiqi yow sama xarit laa tasxab bul ànd ak xaaliyan min al hawa koo xam ne dafa féex ci mbëggeel maanaam bëggu dara walaazim te nga taqoo aqal ashwaaxi boroom ak cofeel wasxab te nga ànd aqal faqri ki nga xam ne aji haajo woo ji yàlla la fa in shimta maa nusxi buruqan tax taxaalafat fala tajnax illa lilladi lil hawa yashri mu ne su fekkee yaa ngi jéem a topp ay laaye biir yu lay nit di laaye biir bul mooy mukk topp ki nga xam ne manam fala tajna bul jeng ila alladhi dem ci ki nga xamne yashri da fay jaay lil hawa mbëggeelam wa in qulta innal katma li sirri satirun wala budda lil asrari qidman min assitri misri ne wa in qulta su fekke da nga wax ni innal katma naka katmu bi ki ñu nëbb ci biir katmiya li sirri ñeel mbóot mi safirun aji aji hir la maanaam kat mu boobu moo móot moo muur mbóot mi wala budda lil asraari xidman min asirti te mbóot yi faaw rekk ñu am malaan ak sutura woo xam ne moo leen di suturaal tax mbóot mbóot kenn du ko weer wa qad xazara cheikhu min nashri sirrihim sëriñ bi wattandikuloo nañu ci ñu weer seeni mbóot wali sirri urfun mbóot nag am na ab gëtt goo xam ne xat yasri ma an nashri mën na royaatal ànd ak eh, tasaaroog xetam maanaam mbóot moom nuñ ko nëbb nëbb am na ñoo xam ne moom dinañ ko jagoo waaw am na ñoo xam ne dinañ ko jagoo misri ne ajabtuka bi anni fi wa sumti an sukrin wa nutqi mu ne ajabtuka tontu naa la yow mi may laaj nii naka man ci mbëggeel bi bëgg Cheikh Ibrahim sama noppi sukrin wële mandi wa sama noppi ki tamit an sukrin cik mandite la sumtoom mooy fanaawam nutqoom mooy baqaawam lépp mu ngi koy defee cik mandite wa wala mu ngi koy def wëlees manditeem walam attaxis illa almahabata saahiban wa ma lii fi zaydin wa ma lii fi bakri walam attaxis jàppuma illa lu dul mbëggeel saahiban muy sama àndandoo wa ma lii fi zaydin aw ma dara lu may soxla ci zayd wa ma lii fi bakrin aw ma lu may soxla ci bakr wa in kuntu majnunan fala ziltu hakaza su fekkee da ngeena wax ni dama dof ba tey maa ngi sama dofe gi wa in kuntu mashuran fama ziltu fi sahri. su fekkee da ngeena wax ni dañ ma njabar ba tey maa ngi ci njabar gog ñu njabar ma wa in kuntu mahsuran bi wadin anil hawa fa inni lada wadil mahabbati zu hasri su fekkee da ngeena wax ni dañ ma teunk ci xur wo xamne xur ak mbegel la fa inni man misri la daa waadil mahabbati ci xur ak mbëggeel zu xasrin foofu lañ foofu maanaam borom ak tënku laa foofu lañ ma tënk <clears throat> abal xubbu illa an yakuna muammiran ala kulli man yadri wa man lam yakun la yadri misri ne abal xubbu mbëggeel bi ma bëgg bàyyi nee na moo lànk illa an yakuna muammiran lu dul ni rek day nekk ku may conditionné di ma digal ala kulli man yadri loolu nag ñeel na képp ku xam wa man lam yakun yadri ak ki nga xam ne sax xamut loolu xalili laa aara ala zil hawa al bikri in xanna shawqan lilladi minhu fi lfikri xalili yow sama xarit laa aara amul benn gàcce ala zil hawa ci ki nga xam ne boroom mbëggeel la al bikri bu nga xam ne mbëggeel bu yees la maanaam mbëggeel ab bikr is xan isa xanna saayu jubloo shawqan mbëggeel lillazi ñeel ki nga xam ne minhu tukkee na ci moom fil fikri ci ab xalaat maanaam bëgg bi mu bëgg bàyyi radiallahu anhu lay wax ni dafa cosaanu ci moom te amu lenn loo xam ne mun na ko jengloo wala loolu mu ne daahu alhawa qahran tarifan wa taalidan waxanna xanina al aasiqina aasiqina ila al wakri mu ne daahu woona ko alhawa cofeelam gi qahran ngir moom mu di ko noot maanaam moom bëgg bëgg Cheikh Ibrahim Niass radiallahu anhu mbëggeel moo ko noot ba mënut mënut cee xam nga moo tax moom fi mu yegg ci Ibrahim néew na nga gis ku fa yegg te pourtant jàngoon nañ ci ginnaaw ne ñi ko fi jiitu bari nañ ba moom sax mu ne wa ma darrani anni qad mu mutaaxiran fa sabqi maalumun la daa nazaril qalbi duma lor benn yoon sama yéex dikk waaye ni ma rawee gaa yi loolu leer na ci képp koo xam ne am nga gis-gisu xol moo tax fii mu wax ni Eh, daahu lhawa cofeelam moo ko ñoddi qaxran ci force ci doole tarifan muy cofeel gu bees wa taalidan ak cofeel yoo xam ne ju cosaanu la maanaam jum donnee ci baayam abdullahi wuldul haaj fa xanna mu sopp wala muy xiiru xaniinal aashiqiina xiiroog ñi nga xam ne ñooy way bëgg yi ilal wakri jëm ci li nga xam ne moom mooy tàgg ga wa xarra ila zaati al aliyati saajidan wa sabbaha bilhamdi alqadimi wa bishukri wa xarra mu daa di rot ila zaati al aliyati jëm ci jëmm yàlla ju kawe gi saajidan di aji sujud wa sabbaha mu sàbbaal bilhamdi ci sant yàlla alqadim bi nga xam ne moo cosaanu وبالشكر مودا ديكوي سانتي تاميت تانت كيغا خامني موي تانت كي بيس لولو موي واني دا فا سانتي يالله تي ازل اك تي ابد وغيب في سر الامانه ساخصا وخلف كل الغير عنه ولا وخلف كل الغير عنه وراء الظهر من وغيب اك مبوت مو خامني في سر الامانه دا فا نيك تي مبوتم امانه بي ساخصا موي لو نيو جيمال موتوم امانه نك موي خليفه يالله بي تخاو تي كاو سوف نيو جيمال تي مبون موم ييب وخلف مكوتل كل الغير عنه ينن ييب ولس موم وراء الظهر تي غيناو غينا مانام لودود يالله مسانيكو شي غيناو وقد جاء وقد جاء من عند الكريم تفضلا اذا جاء نصر الله والفتح في الذكر waqad jaa dikk na min indillahi tukkee ci yàlla tafaddulan ci ngëneel ngëneel loo xam ne yàllaa ñu ko defal lan moo ñëw min indil karimi jugee ci ki tabe lan tafaddulan ngëneel mooy lan isa jaa ndem dikk na nasrullahi ndimbalal yàlla wal fathu ak fathu gi nasrullahi mooy wilaaya fathu mooy xilaafa bu ko defee nag fi zikri ci alquran loolu rot na ci alquran wa inni bi zaaka nasr ma istu aminan urajji dawaama zikri fi xelaqa zikri zikri mu ne wa inni taman misri bi zaaka nasri ci boobule ngañaay aminan aji am sécurité la ma istu fekk maa ngi dund urajji may yaakaar dawaama zikri sax ci sikar fi xelaqi zikri ci géew yi nga xam ne la ñuy zikaree usalli ala faxri wa zuxri musalliman wa ma li min faxrin siwaahu wala zuxri usalli maa ngi julli ala faxri ci sama tiitar maanaam ki may puukare woo ki may tiitaroo wa zuxri ki may puukare woo musalliman may aji sëlmal wa ma li te ñeelut ma min faxrin beneen tiitar siwaahu ku duut moom baay wala zuxrin amuma leneen lu may tiitaroo ku dul baay wa alin ak njabootam gi wa asxaabin ak i sahabaam min al faxri ci tiitar qad rawaw lañ solo wala lañ màndale araahum nga di leen gis la dal ifxaari ca bërëbu tiitarukaay ya ajdaru bil faxri ñu gën a yelloo ak tiitar njaboot baay gi ñoo yelloo tiitar ñoom rek ñoo war a taxaw di tiitaru wala hu aydan ba tey am na beneen qasida ci xarfu لك الحمد كل الحمد يا منتهى الفخر ويا غاية المنى ويا منتهى الزخر من لك الحمد تشانت نيلنا لا يو باي كل الحمد مبولم تشانت يا منتهى الفخر يوم خبنا يا ديت لا بوكريو منتهى الفخر موي خلافه ويا غاية المنى يو ديت لو تشاكوتي في موي مظهر الخلافه ويا منتهى الزخر يوم خبنا يا ديت لو تيتري تفضلتم بالوصل غيبا ومشهدا فشرفتم قدري وعليتم ذكري misirine tafadaltum gënale ngeen ñu maanaam baaxee ngeen ñu bil wasli ci jokkook ñun xayban ci faddu wa mashadan ak ci lu teew fa sharraftum ngeen tabe ñeel ñu wala ngeen teral qadri yi suñu dayo fa alaytum ngeen yëkkati zikri yi suñu tur ba fuñ toll rek ñu xam ñu tamla'u qalbi min hawaakum wa wuddikum وأزلف للمرجو من من آه، من حبكم فكري تملا موي فيس قلبي سما خول من هواكم تي بغ لين ين باي ووديكم اك سوبلين وادلف نيو اوبيل نيو جيجيس جيجل للمرجو نيل كيغا خامني موي اجي ياكار من حبكم تي سن بغل فكري سما خلات تدرعت من حب الغواني بحبكم فساعدني المقدور في أول الأمر تدرعت جنينا من حب الغوام بجل بما ورا بج جونغ ماي بحبكم تي فساعدني مدمبلي ما المقدور نغال في أول الأمر تي سمنجل بينمبر وعشت زمانا من هواهن آمنا كأني مع المحبوب في عالم الأمر من وعشت دننا زمانا جمنا من هواهن تي يوم جونغ ماي آمنا ماي أجي am am ak kolute ka anni mu melni man sax ma al mahbubi dama ànd ak soppe bi ka anni mu melni man ma al mahbubi dama ànd ak soppe bi fi alam al amri ci al amri manam ci nubuwa mahbub moy ahmadiyatul khilafa nga xamne mom moy ki nga xamne mom lañu la ñu jox moom la ñuy xaqatul di joxoon ñu war ko mën topp mu ne walamma raaytu lyawma gurrata aishin taxayarat fi amri wala taxayartu fi amri fa asbaxtu la adri walamma raaytu ba ma gisee alyawma tay gurrata aishin maanaam li nga xam ne moom mooy ak weexu sama dundu mooy perle bu raar muy xilaafa ba ma doxee ba yegg ci xilaafa تحيرت من امري ما گلم تي سما مبير فاصبحت ممجو نيكو خامن لا ادري خاوما صح لو خاو اصبحت من حب الغواني متيما ندخ دما مجو نيكو كو خامن بغ جونغو ماي رك سي لاني ما جاملو ام الحب ام كل حب الشيخ في السر والجهل ولا ليب رك ميم جونغو ماي ما بغ صح ما نلين بغي سي مبغيل دي ما بغ سيرين في السر تي لي يالو والجهر اك بير ida jitaha tashfi lawaadiu lawati wa abqa qarir al ayni munsarih al sadri misri ne ndax man li may bëgg na sax ci sama waa kër ci ay jongoma ndax ci lool loolu la ma la ma yàlla séddee wala wala bëgg bàyyi moo ëmb mbëggeel yooyu yépp ci lu yellu ak ci lu bir mu ne nag isa ji tana saa yoo xamee ni dikkal nga ko tashfi di nga saafara lawaaji a lawaati maanaam samay ragg yi nga xam ne moom moo nekk ci sama xol lawaaji a rawati mu ne dinga saafara ràgg yi nga xam ne ñoo nekk ci sama xol bu boobaa nag <coughs> nga gis ni misri li muy wax ni mooy bépp takk-takk bu nekk ci xolam rek ndax lawaatu mooy xufqatun fil qalb wala métit bu nekk ci xol wala njàqare wala xol bu ñuul mu ne nag mbëggeel bi may bëgg bàyyi saa yu ma dikkalee rek dafay effacer mbooleem gàkk-gàkk xol yi waab xaama des xariral ayni di ku dal xel mun sariha sadri di koo xam ne ku yaatu dënn la waqad raabani minha garaamun wa lawatun waqad raabani ëlëm na ma minha wala waqad raabani jaxasoo naak man منها تكيتي موم بغيل موم غرام بغيل ولوعة بتي أكتفد أحر على الأخساء من لهب الجمر موغنا تنغ تي سما أخساء موي سماي فار سماي بوتيت من لهب الجمر تي سفرة سو خمني دفا تاك بوكونك تور كأني لم أعرف سوى وجه عايشين mu mel ni man xawma lu duut jëmmi Aish Aish nag fii mooy xilaafa wa maa lii mahbubun siwaha te aw ma keneen ku ma bëgg ku dul moom mada dahri sama kiiru jamono ahimu biha ma haama cheikhi bi ahmadin maa ngi gëlëm ci moom fekk sama sëriñ mi ngi gëlëm ci ahmad alayhi salatullahi maa xussa bi zikri yàlla na yàlla wàccee ci moom ab julleem fekk ñu ngi koy jagleel li nga xam ne moom mooy sikar ba ngi yor beneen qasida boo xam ne raaya la xam naa ci boobu la ñuy daanele insha allah misri ne a mazharu jamci ljamci inna lana alfaxru wa nasrun ala nasrin bihi yashalu alsaxru wa amnun wa imanun wa izzun wa rahmatun min allahi ma daama arrahimu lahu alamru mu ne a mazhara yawmil jami e yow feeñu waayu bisub daje bi mazharul jam mooy mazharul xilaaf inna ñun lanaa ñeel nañu alfaxru ak tiitar wa nasrun ak ngañaay ala nasrin ci kaw ngañaay ngañaay goo xam ne yashalu dina yombe bi ci moom as saxru yi dëgër maanaam jafe-jafe yi وأمن دينك جلي كولته وإيمان أنجم وعزون وعز أكتردنا ورحمة أجيرمان ده من الله بتوكيت يالله ما دام فيك من يسخ الرحيم الله من يخبن مويتان كون غيرم لك الله آخرة الرحيم جنجو درر نور خلافة له نيان لك الأمر بريب ولا غروة إن لنا المطالب جملة فأنت لها مغنن به يجبر الكسر mu ne wala garwa du njombe innil naa suñ jotee almataaliba suñ càkkuteef jumlatan mboole seen fa anta yow baay laha ñeel ko magna magnan yow yaay aji magna maanaam magnan bihi yaay dëkkuwaayam boo xam ne foofu yajburu la ñuy jañee alkasu damm damm yi wata xinnu عبيد المحبة هائم فلا النأي يسنينا ولا العسر واليسر من من ونحن نن عبيد المح عبيد أي جاملا للمحبة نيل سنبغيل تيوبات هيمون ولا هيمون دي أجي قلم فلن يو يسنينا دود صري موني ديلو سي موني ديلو كناو ولا العصر ولا اليسر دود لجهة ولا اليوم ولا نخشى ألا نفوز بنظرة يعم بها التوفيق والفتح والنصر من ولا نخفى ولا نخشى دنيا دون رجل أن لا نفوذ أني دنيو تخي بنظرة تيب خول بوني خول بو خمنا يعم دينا متل بها تي خول جو التوفيق سنوك توفيق ما نام دبل والفتح أك سنوك بيكو والنصر أك سنوك دمبل توفيق جنجو درل دل نبوتو فتح جنجو درل دل خلافة نصر جنجو درل دل ولاية فكم فاز بالمطلوب من جاء زائرا ونيل عطاء دونه يحصر الحصر fa kam faasa ak a bëri ku texe ku jot fil matlubi ci càkkutéefam man ak a bëri jot jot càkkutéef jotaf caf càkkutéef man jaa ak ki dikk zaahiran di la ziyaare ji wa nii la jot ataun ak may duunahu yaxsurul xasru may goo xam ne ab limkat munu koo takk a taybata xatmal xatmil xatmi la zilta hakada wala زال ممدودا بك البدو والمصر الطيبة ختم الختم إيه أو طيبك ختم الختم بي كي ختم ختم بي موي باي لازلت هكذا دو دنج دي مل نيغا مل ولا زال دو دنج ممدودا ني ديكو ني تبي بك تي ولا بكي تي البدو آه، دك كاو يا والمصر اك فيليا ñépp ci yow lañ lay tëbbee yow tayba yow medina wala zaala fiika alfaydu walilmu waltuqaa te du dañ ci yow mukk wala zala fiki du dañ ci yow mukk alfaydu bëpp gi walilmu ak xam-xam waltuqaa ak ragal yàlla wala zala du dañ fiki ci yow aljëzbu jëzbu walsaxwu ak ak ak ak wure wa sukri ak mant bi taybata xayri alxalqi kunta lahu shabiha faza almaghribu al aqsa wa tilka lahu alfajru kunta nekk nga shabihatan di aji niroowaale bi taybati xatmil xatmi ci madinaak xayral xalqi ki gën ci mbindee fi mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam faza almaghribu al aqsa faza fii almaghribu mooy maghrib gu sori wa tilka foofule lahu ñeel na ko maanaam fii mooy sowu gu sori wa tilka foofu lahu ñeel na ko alfajru fajar ga maanaam balluwaayu nubuwa fii la xilaafa balle waaye fële la nubuwa balle wa anta te yow li daaka alfajri ci boobule fajar laylun guddi nga boo xam ne mu sarmadan mbudu dakk la wa anta lahu te yow nekk nga di ko ñeel zuhrun ci tusbaar wa anta nekk nga wa anta te yow lahu ñeel nga ko al asru ci tàkkusaan وفيك معاني الخير لاحت لمبصرة فطوبى لمن طابت له وله البشر والبشر مصرنا وأنت تيو وأنت تيو لذا آه، وفيك نك نجيو معاني الخير معنى يوي يو xam ne laaxat upp na feeñ na li kulli mubs li mubsirin ñeel فتوبا تخنيل لمن طابت له كيب كو خمني نيهل سل نا نيهل كو وله تنيل نكو البشو مبكته صلاة جلي وتسليم أكسلم على ربي طي طيبة يالنا واتي تبورم طيبة وآل أكي نيونيوم واصحاب لكي صحابام يرفع ميكتي بها صلاة التسليم بوب القدر أي درجة